kay jërë ngeen jëf mbokk yi noonu ñu leen ko waxee rek bi nga xamante ni ñëw nañ ci tool yu tedd yi muy xel Xelkom xam nga noonu ñu ko baaxoo defee fekk fi mbokk taalibe yi ñu leen ko waxee ci suñu reportage bi jiitu mbokk yëpp teel a xëy lool ci tool yi bi nu ñëwee gis ngeen ko góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp kenn ku nekk ñu ngi góor góorlu ci li nga xamante ni mooy waar wi muy liggéeyub Serigne tubaab boo xam ni liggéey bu am solo la kenn ku ne koo ci gis rek dafay mel ni xolam la ca nekk mooy bëgg gi nga xam ne bëgg na ko liggéey bi nga xam ne moom lay def euh, ku baax ñu ngi lay ziar bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziara yaan yàlla nangu ziar euh, sëñ bi noo tudd ak euh, fan nga jóge ñëw ci tool yi nga xam ne mooy tool yi Serigne Saliou waaw maa ngi tudd Maama Jën Magon jóge daa Fatul Xafa gé Géejawaay Park mu tey jii nag dañoo ñëw ngir fas yéene mottali collègue gi nga xam ne am nañ ko suñu sëriñ suñu yaakaar di Serigne Saliou Mbacké toolu bu rëy bi nga xam ne wootoon na ko di xelkom moo tax ñëw fii di bàkkeelu ci bisu bu rëy bii nii. Euh, ban yëg-yëg ngay am ci koo xamante ni dangaa jikki rek bokk ci ab daayira xay na li nga ko gis bëriwut waaye positif bi nga xam ne moo nekk ci yow ci liggéeyal Serigne Touba ak yëg-yëg bu rëy bi nga xam ne moom nga am ci moom lépp mu ngi jóge ci jëmm jooju di ju tedd jooju di sëriñ Saliou boo ñëwee ci ay toolam ban yëg-yëg ngay am. Ah, yëg-yëg bu rëy rek ndax Serigne Saliou li li nga xam ne ñun moom lañ dund si sëriñ bi moom moo ñu ko defal ba saay su ne ñu koy yëg ci jamono bu nekk fal na gi nga xam ne moom lañ suñ borom dogale muy si daara gi nga xam ne ñun ñu ngi koy dund te fànn googu noonu mu doon fànn bu rëy ci liggéey bi te yàlla dogal saay su ne ñu ko siy yëg ndax moo ñu tuddee fatul xafaar moo tax saay su wootee dañuy bàyyi suñu lépp ñëw ngir joxe suñu yéene ak suñu xol ak suñu lépp su matale bis bii nii Euh, jërëjëf mbokk yi ba tey gis naa mel menn mbokk ni ci sama wet maa ngi gis euh, mu bind ci li nga xamante ne mooy fondation Nourou Darayni euh, te mel na ni nataalab Serigne Saliou Mbacké moo nekk ci moom ñu bind ci Khelcom 2021 mbakku maa ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw ñoo leen di fay bu baax baax di leen ziar di rafetlu seen dugg ci si ci tool yi nga xam ne tool yi njëriñ la nga xamante ni liñ fi gën a saako si mooy jamono ji seetaane daa bëri doole da jëfal Serigne Saliou. day tax bàkkaar yeeg ñàq yu lewut yeeg yëpp day wadd yow noo tudd man maa tudd Cheikhouna Kéré euh, fan nga jóge man maa ngi jóge Touba maa ngi ne woon fii nag euh, njàpp ndal laa jàng gu sëñ Saliou après sëñ Saliou toxal ñu Darou Salaam waaye nag liggéeyal sëñ Touba moo du doy moo tax lu ñëw rek dañ ciy defal suñu yéen. mel ni damaa gis ci mbubb mi fondation Serigne Saliou loolu naka la demee. waaw fondation Nooru Daarayni soppee Serigne Saliou groupe euh, WhatsApp mu bu ñu defoon soppee Serigne Saliou ay ndaw yu engagé wu nekk ci ba ci ak ñu ne nañ ko def euh, ab daayira def ko fondation heure bu xelkom ñëwati li euh, addee di dañuy laaj liggéey bi rek ci xel xelkom la jëm bu ñëwatee jën ci addee joxe ci dal bu mag bi fas yéene ci liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou ndax jamono ji liggéeyal Serigne Touba rek euh, moom moom moo fi des. ban yëg-yëg ngay am boo ñëwee fii ci tool yi. fii bu ma ñëwee yëg bi may njëkk am mooy damay fàtt lépp ci àdduna muy muy naqar lu mën a doon daal moom damay dafa dafa mel daal kuy doogu judduwaat daal ba mel ne daal man musuma nekk ci dara loo xamante ni lu dul liggéeyal seen cuwaay yëg-yëg bi may am daal mënu ma ko sax daal di ko expliquer daal. ban ban ban ban ban message ngay lancé ndaw yi nga xam ni eh, ñoo nekk ci jamono te ku ne xam na ne jamono jii nu nekk tey eh, jamono la joo xam ni ndaw ñi lu bare bari fëkk na leen yow mi jaar ci daara Serigne Saliou tey ji nga ànd mbooloo di fi ñëw lan ngay lancé message ci ndaw ñi nga xam ñoo lay seetaan. Eh, ndaw message mooy. li sëñ Tuubaa waxoon rek wattani boo ma jaal sa saxaawa jetaa way taxee di ñu ngi ko maytandu ko jotaay way taxee ji ne ko ko bëgg a maytandu ko da ngay taxaw ñi nga xamante ni sëriñ bi da leen defal yàlla suñu borom daal leen defal muy njabootu sëriñ Tuubaa gi mu mel ni kii ñu liggéeyal fii ci xel ko muy sëriñ Cheikh moom moom sëriñ Saliou euh, adduna bépp mën nañoo teg seen bët mën nañoo seedale lépp lu mu am ci yàlla ak yonent bi suñ Tuubaa la ko teg kon nag buñ bëggee mucc dañuy seet jàngale sëriñ Tuubaa nekk ci xësiday suñ tubaay yi bu liggéeyam suñ tubaay ñu def suñ kemt lay kattan loolu moo mën a tax ndaw ñu mucc ndax jamono ji toll na foo xamante ni euh, jëmmi média yi bëri na de média yi jëm ci lu baax dafa jafe comme ñu mel ni yéen bu koy ndaw ñi di seetaan di ko diglu jàpp naa ne di leen di leen soñc lu bari pour ñu man a maytanu ko jotaay bay bay bay taxee di waaw ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan Xelcom ji yàlla nañ ko yàggal liggéey ndax heure bu ñu fiy ñëw dañ fiy ànd ak mbégte moom daal yàlla ñu yàlla saxal ci liggéeyal Serigne boole gim ñu boole sëñ Tuubaa rek la ñuy ak sant yàlla lu ñu fi liggéey daal loolu lañu ko sant yàlla boole ngeen jëf mbokk yi ba tey maa ngi janook benn soxna euh, soxna si dafa mel ni yow moom miin nañ la macha allah muy soxna Marème bu bëgg sëñ Fallou soxna Marème ñu ngi lay nuyu baax di la ziara euh, di bëgg rek nga présenté wu ak wax nu mbégte mi nga xam ni moom nga yëg boo ñëwee ci tooli Serigne Saliou yi di Xelkom. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa xanaa di kontaan lool rek di kontaan bi ma bu ma duggee xol kom sama xol bi day sedd guyu ndax liggéeyal sëriñ Saliou rek a wóor ndax sëriñ saaliw noonu na ki ma jaaxal mooy taalibe bu mos sa dikk xel koom ginnaaw ñëw nañu nag ànd ak sunu njaboot di liggéeyal sëriñ Touba sant rek lañ koy def waaw di dikk nañu di liggéeyal sëriñ Touba ndax ku liggéeyal sëriñ Touba perte nga. mel ni jamono bi moom ku wax soxna Marème Mbuub wax euh, daayira bi nga xamante ni macha allah muy daayira boo xam ne sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke moo ko jiite muy daayira euh, alxuraan ca kanam ma lan nga leen di yóbbante ci am nuyoo. waaw maa ngi sant yàlla di julli ci sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di ziare tubaarkàlla macha allah maam Cheikh Anta Mbacke maa ngi koy ziare bu wér a wér wér ndax dafa taxawal alxuraan ca kanam. Euh, sëñ taxaaba Bassirou jox ko ci ndigal ñu dem fa mu yëkkati àddiya ju bari jox ñu man mii ak sëñ ko sa ñoo ko taxawal euh, Dakar pour liggéeyal euh, sëriñ Touba alxuraan nag buñ ko waxee ah, sëriñ Touba mooy alxuraan ndax sëriñ Touba loo ko mas jox lu dul alxuraan mun la tegal ci suuf kon boog sëtam bu tedd bi di maam Cheikh Anta bu taxawalee alxuraan ca kanam ah, loolu mën naa nekk waaw yàlla na ko yàlla jàppale. jàppale mbooloo mu jullit ci barakatu Seydina Mohamed ndax sëñ. mu mel ni teew nañ fii ñoom alxuraan ci kanam ci. waaw waaw alxuraan ci kanam teew nañ ci liggéey bi alxuraan ci kanam ah muy sëñ Xaadim Guèye ñoom ñëpp taxaw nañ ci liggéey bi ak sëñ ko sa sëy ma di leen siyaare bu wér wér wér wér wér bëgg taalibe yëpp jàpp ci alxuraan ca kanam ndax sëriñ Mourtala waajuram ba dey ah, fu nekk am na fa daaray alxuraan Europe ak fépp am na fa alxuraan ca kanam kon boog yàlla nañu yàlla jàppale jàppale mbooloo mu jul ci barkatu Seydina Mohamed liggéeyal sëñ Saliou daal ngi ni moom rek a wóor noonu na jox leen ma ndaw ñi ma def leen li nekkoon ci mag ñi kon boog noonu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax jërëjëf sëriñ Taaru sëñ Saliou demul fenn mi ngi fi mi ngi jàkkaarloo ngeen bàllay sabri sëñ Mbàkke Maar waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci reportage yu am solo yooyu fii nag eh, ñu egg si léegi barab la boo xam ne bu ngeen ko gisee day mel ni ngooñ mi tàmbali na fay bari mooy kon mbokki taalibe yi ñoomit it ñenn ñi eh, dañuy jël ngooñ mi di ko dajale mu mel ni eh, sëriñ bi ñu ngi la fekk fii eh, noo tudd ak fan nga jóge ci goxi Sénégal ak ban yëg-yëg nga am ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu tedd la muy Xelcom alhamdulilahi rabbil alamin barke borom tubaa doole Cheikh Fall waaw ñun ñoo ngi tudd sëriñ Xaarim Fall ñoo ngi jóge ba Géejawaay parc waaw ñoo ngi bawoo foofu ànd ak daara muy daayira Fatxul Xafaar ñu ngi ànd ak moom nag ñëw fii waaw daanaka uh, at bu jot moom dinañ jaanti def suñu kem kàttan ba mbooloom mi yëpp bu mënul ñëw tamit dina am lenn ci mbooloo mi loo xamante ni dinañ ñëw mbooloo daara bi yëpp nag ànd dajale seen alal boole seen doole tamit ñëw fii ngir liggéeyal sëriñ Saliou waaw ndax amaana fii moom ëpp naa bañ a ñëw ëpp naa bañ a ñëw kon ndokk yàlla ba suñu borom bu ñu xiiree ci maanaam di liggéeyal Serigne bi ba sëriñ boole ñu si boppam ba koy mën a liggéeyal. am boo boo tàbbee ci tool a ah fii de bu ñu fi ñëwaatee daanaka dañuy dañuy beesaat taq daanaka dañuy dañuy yëg ni daal maanaam lépp li nga xamante ne nekkoon si ñun maam lu ci lu ci ëpp wàcc na lu ci ëpp wàcc na waaw ndax moom fii moom wax dëgg yàlla da ngay xool ni maanam sa waajur wala sa benn mbokk bu la fi naroon indi rek si tool yu mel nii di la fi defloo yi amaana ay xeex ngeen di mujjee te fii da fi ànd ak mbégte loolu booy liggéey sëñ bi nga ngay yëg sëñ bi rek nga ci yëg sëñ bi nga ci yëg kon nag alhamdulilahi rabbil alamin